merci beaucoup. parce que. jot na yenn yi rafetul. waaw kon kay nañ ko Dakar listé. exactly gaal seen listé. léegi gaal seen listé. léegi wuy ma nguur gi fi ne newoon. dafa amoon dafa amoon la la wi tax seen ab loxo. Mm-hmm. Macky Sall ak ñi mu àndaloon le président Sall ñi mu ànd président ñi mu àndaloon. Mm-hmm. ñoom groupe lañu du ñëpp a def de benn groupe moo doon def. di def nag yóbbu ñëpp. groupe boobu doon def nag dañoo aay. danoo aay de. Hmm. naka lañ aay billaahi danoo aay. Mhm. waaw kay ci naka. ci naka nag lu ma neex ci yow. Euh, président maa ngi ci antenne bi boo bëggee ma def la direct. non non ko te yow xam naa ne bu ma defee direct ñi toog nañ kontaan. trop non bu def direct. en prési. coupé na. Ah, ah, coupé na. alhamdulilah kilifa waaw bu baax. Mhm. mais dinaa wax sax benn affaire. gis nga. waaw dañ leen woo ci rupture Sénégal. waa mhm. na gars yi dalal seen xel. c' est le début du commencement. c' est le début du commencement te benn affaire moo am yow eh eh est ce que xam nga li ngeen di émission yëpp yàlla mi ma tiim seede na ma maa ngi toog di seetaan di déglu di enjoy xanaa ma seetaan bi dàq. moo dàq téeméer junni parce que seetaan bi seetaan bi di am temps lire commentaire mais commentaire yi émission la commentaire yi dàq émission bi dañ leen a bëgg oui mais ma wax la télé woo télé internet sans limite yi ñoo dàq ci gën a neex émission yenn saa ñu dugg ñu ah, ah, am na lu ma ci lire sànq ak mënti ñëwee rek ñun bëgg nañ du ko am non non non ah. <laughs> pour ngóone rek. nga ne dañoo aay lu tax. looy nëb xamul lu ñu kay yàlla ne dañoo aay. Ah. président Macky Sall dafa dem. Mhm. dem nga jeex na. Mhm. xulil l'état c'est la continuité. Mhm. le système le le leadership change. donc forcément le système change. léegi nag dans le bon sens loolu la ñuy souhaité moo tax may wax tout temps gëmuma système anti système li ma gëm mooy leadership. bu am doole boo xam ne mooy ñëw teg système bu baax bi. Mhm. ñu liggéey. Mhm. système bu baax bi pointage rek euh, tali bi féex nii dix heures onze heures tali bi daw normal. Mhm. yaa yaa avantage. léegi nag ñoo ñoo xam dañoo aay dafa am lu tax ñu aay. lu tax ñu aay. ils sont toujours en mission. pareegul. barke Baale Aliou ak Khalifa Ababacar ak El Hadj Fall ak Mame Baye pareegul de ku koy yaakaar nelaw. moo tax il faut les reconnaître one by one pas pour leur faire du mal déedéet dañuy liggéey nañu liggéey ñu ngi seen ay postes qu'ils méritent nañ fa toog liggéey mais il faut les avoir à l'œil et leur montrer qu'on vous à l'œil maanaam ñuy toog di sentir ñoom ci seen bureau di yëg ni ils sont super contrôlés. <coughs> pas de buruxlu. pas de buruxlu. pas de baaxul pas de. clin ma waxee ko. ma waxee ko pas de buruxlu oui. parce que lu tax lu tax ma ne dañu bii laxe dañoo ay hmm. te te boo amee liggéey boo jëlee réew bu toll ni senegal hmm. nga ñëw fekk fi lii Bassirou Diomaye Diakhar fay war a fay cinq milliards par jour d'endettement pour combler dix-huit mille milliards waaw par jour léegi yow hmm. li la mën a dimbali mooy ñi yàqoon ñëpp audit boobu ñuy def noonu ñi yàqoon ñëpp ci la bokk di nga ràññatle di nga xam daa xam kii moo la kiw diw kii moo la lii nga xàmme leen ay leen nag ba pare wan leen ne maa ngi leen di xool parce que boo leen wanee ne maa ngi leen di xool mooy mooy dissuasif mooy tax ñu def attention boo nelawee am na fi ay directeur de société laata ñu leen di wàcc semaine bii. oui naar moom dafa bëgg a nettali. tey dinaa doon naar. il y a 15 jours il semaines am na fi ay DG kilifa yi ngeen yi nga xam ne yéen ñu sax di ñu déglu gëstu leen yooyu ils ont fait des commandes. ba pare bi ñuy waaje diggante bi nguur bi di changer kii dañoo ñenn ñi dañoo mel ni ñu jëfuur di accélérer demande yeeg commande yeeg et cetera yi ñii jël yóbbu seen kër ñii jël yóbbu ci seen ay société fictive yeneen ñii jël ak nangam ak nangam ak nangam. waaw nañ continuer rek am na ñu ci ñeganaayoo bang de. je vous dis ah, dama leen di dama leen di dama leen teel a hmm. alerter. mais dañ leen a wàcce. ñooñu noonu di ko def. Hmm. dañuy sonal seen bopp. oui pourquoi dañuy sonal seen bopp. li tax ñuy sonal seen bopp. li ñu yaakaar amul. li ñu yaakaar amul sàcc bu du raw de voilà voilà sax saxul nga yàq say nelaw li ñuy def noonu di jéem a poroxlu wala di jéem dañuy sono seen bopp mm-hmm. am na ci am na ci koo xam ni yow ñu ngi yaa ngi laaj xaalis pour marché tali ba nguur gi bi muy wàcc defaru tali bi léegi kooku am na problème léegi ana xaalisu marché tali bi. ana laaj naa la ko. li ma wax sànq ci audit. ngam dem problème la. mais comme il dit sàcc bu dul daw. leneen li fi ne. xawoon naa xiif wax tuuti. man tamit euh, leneen li fi neex la may ma bii non bu leen ko def yéen doomu nag jàpp leen ci journaliste waaw xam ne ma ñëw rek. jàpp leen ci journaliste yi tamit yi waat jamono ji di xataraayu te naan mosuñoo lekk dërëm déggu ma. Mhm. changement de situation dafa am. Ah, waaw ah. ñeneen rek di leen bàyyi. a ah, ko yaa Cheikh Baba Lamine Diassé nga ca buuxlul ña naan mosuñoo lekk dërëm lekkoo leen xam nañ ko yaru xataraayu. lu may jëf boo lekk xam nañ xataraayu na ko. Euh, kii koor. koor déedéet a on chef d'État élu pour pour pour rendre ce pays merveilleux à l'avantage de tous les Sénégalais. macha allah. moo xam nga xataraay moo xam nga bañ a xataraay c'est pas important yow Sénégal nga ci nga bokk ci jaboot nga bokk mais lenn moo am. Mm-hmm. li woon wónni na. la presse sénégalaise précarité boobu ngay insinuer mu dem ba benn niveau bi gars yi ñuy ñuy jël di di def naka sulu noonu. léegi léegi léegi lenn moo ñuy dimbali Pape Ousmane. Mm-hmm. mooy l' état état bu bees bi day valider code de la presse bi sauf que bu kaa day teg fonds d' appui bu kaa accompagner aide à la presse disparaître. Mm-hmm. qu'on ait plus de dignité euh, Nabucor dafa bëgg ubbi groupe de presse mu dem ci fonds d'appui ba teg les garanties qu'il faut nécessaire état bi accompagner ko ñu financer ko mu liggéey oui mu liggéey di fay impôt nangam a nangam ñu permettre ko sur trois ans quatre ans cinq ans mu installé wu mhm, doon a commencé maanaam restaurer la dignité professionnelle mm mais loolu bala may fàtte code de la presse boobu bala ñu kaa voté bala ñu kaa confirmer du moins am na article dix-huit boobu di wax ci mbirum borom ñaari tur yi nga nekk journaliste ñu ne la amoo droit désigner ni borom ñaari tur di ko bind di ko kii boo ko defee dañ loolu foofu mu dañ ci code ba dépénalisation waaw dépénalisation rek la ca des criminalisation ci assemblée nangam nangam fi maa tëjee moo di ne Aminata Touré sanu yaay bi eh Aminata Touré wuy ma benn jamono Saliou mm. ak Mami Samba Aminata Touré dañ kaa génnewoon woon assemblée nationale mm-hmm. man mosuma woon xam ni nit dina bon bon ba bon yow fexe nga bëggee na Aminata Touré ci assemblée ba ndax loo xam ni d'accord leen ci léegi yow njort nga ne Aminata na dafa war a duggaat ci assemblée bi parce que bu recours bi demee ci justice ñu doxal yoon day dellu ci place bu delloo ci place am la majorité va appartenir à l'opposition 83 82. Hmm. léegi yow iñaana nga Aminata Touré dugg ci mbir mi ngay fexe nu say député. àndee nguur gi pour que daal loolu na sax. mu ne ndax lan ndax njaax bi la ñuy bañ. njaax nag dina am. na Aminata Touré dellu place am ca assemblée ba ngeen fay ko ay salaire am ya ngeen ko ameel benn opposition bi gàddu majorité bi wa ña fa newoon doonoon majorité doon jaay doole di indi gendarme ak lii dootu leen indi gendarme. gendarme dootu leen indi policier c'est dootu leen indi sécurité di jaxase assemblée bi di voter lu leen neex abanta piw c'est fini léegi léegi réew mi dafa changé wax na ma la ma saf oh. ma wax la del continuer di wax lu la saf ndax xam nga lu tax <laughs> mu dee ñoom jëllub njaax bi la ñuy bañ njaax faaw mu am benn beneen ba ca topp mooy gis nga fii ku fi réglé wul waxu mhm. lébu laa lay wax dañ lay pop ba biir weex ñu ràjj la ci suuf bàyyi la wàccee dañ laa sabañaa laa sab waa léegi xool ngeen may may tuuti rek ma réglé leen ma réglé plateau bi du dëkk waaw kay yéen ñu baax ngeen eh voilà fan ki ne sa xol bu sedd dootul xëy dama kaa fan ma ma bàyyi bopp alab lebu bu nga ni boo tëddee sa biir néeg ku la neex u li ma kontaanee ci littoral nga ni boo tëddee sa néeg ku la neex u daggal ah loolu jeex alab lebu léegi jeexagul de yi am na ñoo xam ne comme censure defal lu la neex dañuy pour yàq wax nga lala sax mm-hmm. nga ni la ma bàyyi bopp waxal lala sax waaw billaahi ci waay mën waaw mm-hmm. réew mi daa neex. daa neex incha allah yéen xool leen ma man xaw ma ban jamono laa gëj a ndikki normal. mayonnaise ndikki ah. mayonnaise non non pas mayonnaise dañ daan jënd ndékki sax teg ko kenn du ko lekk. mayonnaise bi ñu def rek loxo non pas ak yooyu. bati ko ba mu ba mu compacte noonu. nga non non pas pas mayonnaise ah, pas mayonnaise yow yow ah. <laughs> euh, yow teel euh, ah, jërëjëf s'il vous plaît may leen ma tuuti rek. les géyeen là des œufs euh, à la gruyère. Eh eh et et xulil ak persil. eh ganima. sama yaram daw nag merci jërëjëf Seck jërëjëf waaye kay may leen ma tuuti rek maa leen ko ñaan ñu jàkkaarloo ak Malick ah euh, ndaxte nag wax dëgg yàlla moom comme Pastef la bokk Euh, dafa bokkoon te ña nga xamante ne ñoo doon ganale le président de ah. république ba mu fa ñëwee le président Macky Sall mm. Malick nag faaw mu ñëw ñun gu te te yemul ci nabu ma doole la ci ba pare gan gi waaw waaw ay ca très rapide dama yow rek mën naa jël non kenn mënu laa tere nii da ngay si kon bàyyi ba bàyyi ba nga pare non non vas-y ma belle vas ma waa dama leen bëgg dañoo mën gan man ah, ñoom la kay toog moo fa ñëwee ay moo fa ñëwee xale yi nekk ci teew bi naa leen lool uy ma ay ca ay ca